salaamaaleykum ñu ngi leen di ziar bu baax a baax euh, jëwriñu daaxiri mu Muntaxa ànd bokk liggéey bi si cant gi nga xam ne te moo ñu yëkkeel muy mbooloom Sëriñ Tuubaa mi di ñaan yàlla suñu borom li ñu sumb yàlla àggale ko te daray seytaane bañ see lal bañ see am wàll di am contentement bu baax a baax mbax xëy na euh, yàggoon nañ ko bëgg xëy na tey la ko yàlla dogal di santaat bu baax li nga xam ne moo ñu booloo ñu mbooloom Serigne Touba mi di ñaan yàlla suñu borom rek lu ñu mën ren rek bu déwee ñu mel ñu mën lu ko di wax na am nañ contentement bu baax a baax a baax a baax a baax liñ si yàlla boole si liggéey bu mel nii di santaat bu baax a baax di santaat tamit Serigne Touba bu baax a baax yaakaar naa moom liggéey Serigne Touba rek moo wóor comme que yàlla boole na ci ba ba ba mel nii bañ bokk ci liggéey bi dañuy santaat yàlla bu baax rek. waaw ñun de kontaan nañ trop kontaan nañ trop waaw fi mu moom ñoo ñoo yor wàllu waañ wi ñoo ne si waañ bi waaw toolu teg nañ suñ cunul soos ba pare ba teggi ñu ngi wàllum saaf pompe terre bi daanaka si loolu la ñu joxoon te li ñu joxoon wax dëgg yàlla ñu ko respecté muy wàllum waañ bi moom ñu koy waxee joxe woon daal si kàttanu yàlla ñu ngi si ba yàlla dogal waa ñuy pare ndax foofu la ñu tegoon te ñaan ñu si yàlla am benn benn kii boo xam ne dañ ko si def. dañ siy nekk rek ba ya àll bu liggéey bi paree rek ñu xam ne suñu liggéey man na ñu nekkaat si leneen waaw ñu ngi santaat bu baax baax di santaat suñu tubaab bu baax a baax nag di santaat mbokk taalibe yu baax di am contentement bu baax a baax macha allah lépp doy na moom lépp doy macha allah lépp moom doy na baax na lépp baax na dara manqué wul macha allah dara manqué lépp rafet na moom xanaa gars yi ñëw rek ñu berne ak waaw macha allah ku fi ñëw daal yaakaar naa moom moom da da nga yëg li tax waral ñu doon cant gi da nga ko yëg si kàttanu yàlla waaw ñaan yàlla suñu borom rek yàlla àggaleel ñu rëpp waaw santaan nañ baax baax a baax a baax waaw ñaar fukki at yi contentement rek la ndax yaakaar naa ne moom ñaar fukki at ñaar fukki fan dëgg yàlla ñu nekk si nekk si nekk si ba suñuy doom ak suñuy suñuy suñuy doom ak suñuy rakk daana ko judd si loolu ànd ak ñun si liggéey boobu dañ sant yàlla bu baax a boo gisee tuut yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi si koñ bi tamit di santaat bu baax rek ndax yaakaar naa liggéey Sëñ Tuubaa rek moo wóor ndax yaakaar naa bu ñekkoon si beneen liggéey tamit wax dëgg yàlla tuut tànk liggéey waaye bi ñëwee fekk nañ ñu nekk si liggéey Sëñ Tuubaa bi ñu ànd seeg ñun kon boog dañuy santaat bu baax rek di santaat bu baax rek Sëñ Tuubaa bu baax a baax di ñaan mu kàttanal ñu bu baax a baax jërëjëf. نقي تقي صالح ومسلم مسير

رقيب رقيب مستجيب مسرسب مزيع ملاذ ومائل نسيب حسيب ذو هدايا مقدم هو الناس والميزان نبي له زان عزيم مبين هو المصطفى المختار salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi saar bu baax di tubaat ci kàddu yi ñu bëggal yi yëkkati fii kii jëruñ vie lañ koy wax waa kër sëriñ Moussa Mbacke Nawel ñoo ñëwoon tey jàpp ci bés bi am ci yéene lool ak ak ak yitte ak euh, sàkku ci ngërëm Sëñ Tuubaa ndax lii chaque année dañ ko daan def mais xëy na doole ji daa gën a yokk yokk tey xam-xam gi daa gën a yokk ndax chaque année rek day gën a yokk di gën a taw féexe di gën a murite waaw avant tout maa ngi tuub di nuyu sama gaay yi moo ndaw soy bu jeng ak yeneen mbokk taalibe yi nga xam ne ñu ngi jàpp ci waañu kafe gi te defaluñ ko dara ngir jëmu maam Cheikh Ibrahima Fall waaw bés bi nag ñu ngi kiy sant bu baax a baax a baax a baax am nañ ci kontaan soo ba léegi dang-dang ngeeg yooyu noonu tawféex dong la ak ngeneel ñu ngi ñaan suñ borom mu dafa ñu ko tawféex ak yokkute yaa ngi dégg ndax ñu uh, ki nga xam ne tey mooy jëruñ daara ji muy sëriñ Bassirou Sow ñoo bokk daara fële Touba kii Serigne Moussa Mbacke Nawel dañ ñu ko waxee dañoo dagg siñ yëpp daal di ñëw ñëw ngir sàkk si depuis dem ba léegi ñu ngi fi waaw bés bi suñu bés la suñu kii la maanaam daal. dama dañ cee am kontaan trop trop trop sax waaw ndax defaluñ ko loolu jëmm Cheikh Ibrahima Fall waaw ndax ëxlu kafe gi boo ko defee rek boo ne ëxlu kafe rek sa xel yëpp day dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw ku ne cant na café bañ ko sax dañ cee xaw a defaale bu blanc bi muy muy meew mi waaw kon muy noir blanc bi lépp ci biir cant gi te kafe gaa ngi fi meew maa ngi fi dana yaatu lool te gan gu ñëwee tamit dañ ne xool ba fa nga ne ñu tegal la fa kaasu ñu tegal fa tarmusu café ak tarmusu meew ngir lépp lu nga xam ne ne bis bi moo ko laaj te lu mu laaj rek ñu def loolu. waaw ci fu mu toll nii ci suba seggoon nañ ñaari ñaari pôle waaw xam naa nag ngoon gi dañuy seggaat ñaari pôle guddi gi nag moom moo am dañuy terale rek ba bés ba fa mu waaw dañuy segg di joxe rek ba fu lu mu laaj rek incha allah am nañ ci yaakaar loolu café geeg moom noonu lay demee ci suba ba léegi mi ngi daw. waaw mu toll nii sax boo xafee tuuti rek mu tàmbali mu dawaat sincèrement bi daa war a daw yaa ngi dégg bu ñu demee bu ko digg nag moom boobu moom ñii dañuy segg ñii di suukar ndax temps bi moo ko dul laaj ndax minute bu ne rek kafe daa war a daw ndax loo xam ne day fanaan waaw ñu ngi ci sàkk di nga xam ne tey jëriñ gi nga xam ne tey jii kenn xam ne ko ci wàllum Serigne Touba te bu toogee waxtaan rek xel yëpp Serigne Touba lay ne da lay yedd ki nga xam ne tey jii moom lañ invité muy Serigne Gana Massary waaw kooku moom dañ koy bàyyi sëñ bi rek mooy jox murid kafe ah maam de su ma xasee takk sama laxasaay gi rek fas yéene taxaw ne maa ngi liggéey sëñ bi maa ngi fas yéene liggéey sëñ bi nit taxaw ne kafe laa bëgg wala nga dim na ko kafe ak kafe gaa ngi nii kay naan wax dëgg yàlla de foofu moom dama ci am kontaan goo xamante ni man ak sëñ bi rek ko xam waaw ndax nga suukar kafe di ko jox nit mu am ci yaraange jox la mu naan naan yaraange delloo la kaas nga jël delawaat maanaam yow doo bëgg sax yow affaire bi dagg da nga bëgg di continuer sax di joxe café maanaam te jii nga xëy rek da naanu café rek maanaam heurel la ci murit nga xëy rek nga ne naanoo café ci murit heurel la maanaam mur ki chaque chaque minute daa war di naan café même donc guux la bu dee da nga cee guux sax guux ci te dem waaw loolu moom ab tawféex la loolu sëñ bi moo ñu ko defal daara ji maanaam du mën lépp fii la ma fekk waaye xaaj bi lu bari fii la ma fekk ndax xamee naa ci gisee naa ci tawféex gisee naa ci njëriñ ndax ndaw ñi ci ne wax dëgg yàlla dara ñorul leen lu dul sëñ bi bëgguñ leen lu ñu sëñ bi te gisuma kenn ko ci xamante ni tey jii doxu ci lu lu sëñ bi waaw saa yu mu xëyee ñu ngi ci sëñ bi ci sëñ bi la ñuy wax ci sëñ bi lañuy dox waaw même bu ñu xëyee di liggéey sax ci sëñ bi lañuy wax kon tey jii bis bi nga jàll mooy tey jii nga xam ne ne corona bi amoon na fi mbas mi amoon nañ yéene lool def ko mu yaatu waaye dañoo làqut ci ab bés benn kër defee ko ci ma nga xam ne ne ñi tey bés bi jaral na leen lu ne lu ñu am lu ne tamit jaral na leen ko waaw wax dëgg yàlla de ku rayukaay lañ ñu af pëseef lañ waaw damay ñaanal suñu borom rek lii mu yàgg fee sax waaw saa yu ñu xëyee rek mën-mën gi gën a yokk ak doole ji ak kattan gi ci barki Seeru Faal waaw taal bi de yaa xam nga rek yaa mu gën a xam te jëruñ moo ndaw la dañoo toog nii rek daal di ci créé nii rek ci ki nga xam ne tey jii seen nañ bagage café gi te café gi dafa war a taaru waaw ku dul dox ci wàllum Cheikh Fall rek ci mbirum café ah, war nga ko mën a set seetlal moo tax tey jii ñu jéem koo xam naa setuñ nag waaye dañuy jéem a set ngi jëm bés bi ndax lii moom wax dëgg yàlla xëy na amoon nañ yéene gu ëpp lii waaw amoon nañ yéene gu ëpp lii mais xëy na rek bés bee ko laaj mais muy mi moom bu café gi teggee rek moom na ñuy daal ndax waaw café gaa ngi tege moom léegi kafe gi moom bu teggee rek meemu liñ jëm meemu moom ci guddi gi la la ëpp li dox waaw di sant rek euh, ki nga xam ne sëñ Bachirou mi nga xam ne tey jii mooy mooy euh, jëruñ bi sant sëñ Bada maanaam su ma limee daal duum juum waaw moo tax maa ngi sant ñëpp rek euh, di wax rek lii moom yaan nañ ko mën ay ati at te sa gane bi ñëw yaan na gën a yaatu te kenn ba ñu fekk kenn ci lal waaw yaan nañu fekk ñuy dox te mën ko poos yi duuf ñu mën koo liggéey ngir jëmi Sëñ Tuubaa waaw maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax dañoo mënante wax nag ñu tubaat bu baax a baax